mais mais mais cette cette cette mesure là dafa poser un un, un problème. Mm -hmm. euh, d'une part il y a ñi nga xam ne dañoo ñëw négocier un titre foncier de de de l'État. Mm mais am na ñu ko négocier. Mm-hmm. jaay ko ay sénégalais ñu jënd te mu lew leen ñu jël mesure euh, cible ay euh, ay lotissement euh, cibler ay zone ne lépp luy construction dañ ko fay dañ ko fay arrêter. Mm-hmm. mais justement li nga wax su am solo la parce que boo dikkee par exemple kenn ki mu nekk Italie wala bu nekk France wala mu nekk Amérique di liggéey daan dooleem xam nga ku tukki li nga jëkk am sa yitte mooy jënd suuf jënd kër nga dem gis na nga lotissement bu am filawo wala bu am yëmbal wala bu am feneen ñun la temps lay jar nga dajale sa dërëm ak sa daqaar def ko ci jënd yow jënd nga la nga xam ne dara terewul ko nga jënd ko lu légal la tu as c'est un client de bon fois nga jënd fay ca la ca war a fay am sa këyit nga ci war a am nga war a tabax dem wut si permis de construire ñu jox la ko nga commencé tabax nga dikk jënd la arrêté kan ngay gaañ ki jënd ngay gaañ Sénégal boobu jënd ngay gaañ mais ka nga xamee ne jaay na ko ba dem wala lekk xaalis lekk xaalis ba mu ko jaay rees na kooku yoonam newu ci bu Sénégal bi di sonn lan ngay def ci moom kon kooku moo tax ma ne la que mesure yenn yi néew ma am réew du ñu leeral du càmbar mais aussi il faut ñu seet ko parce que gis nga loolu mooy ci moomeel gi ngay wax mais impact économique bi nga xamee ni que am na ko romb na foofu xam nga lan fam la lu tax mu romb ko boo ñëwee nga ni laal nga diw da ngay mën nga créer yenn boo dikkoon tey nga dikk toj toute la corniche dama ne état da koy nangu pour rembourser la état amul moyen pour rembourser loolu. surtout dans le contexte économique actuel. amul état amul moyen yi pour rembourser ko xam nga loolu mënut a nekk xel mënu ko nangu mais lu tere yow créé nga benn psychose wala créé nga situation boobu nii taxawloo nga ay chantier ñaata Sénégalais ñooy liggéey chantier yooyu. on parle de dix mille emplois non ëpp na ko. ci ci en tout cas ci ci secteur boobu boo xoolee les statuts de la de l'ANDS c'est des dizaines de milliers d'emplois entre. la corniche jusqu'à ko Yambar ak feneen ak feneen mais loolu xam nga loolu benn la employé ngay ñuy créé foofu ay journalier lañu yaa ngi jëm tabaski ñu war a yóbbu jënd mbubb jënd dàll jëndal joxal jox madame bu jënd greffage wala jënd xarum tabaski. Mm. yëpp da ci am nga xañ leen kon xam kon loolu im musique boobu nga leen impact seen yoon newu ci. travail boobu ngay xëy day. te retour de bâton bi day am. loolu sax c'est autre chose mais au boo xoolee travail ko dal deuxième chose usine bii di produire ciment. bu gisatul ko en chantier dootul jaay ciment am déet kooku ay milliers de travailleurs ñoo fa nekk kiy produire matériel électricité wala plomberie wala leneen dootul produire ki koy jaay kenn kay dootu ko jaay donc dafay nga bloquer activité économique banques yi nga xam ne dañ dugaloon seen xaalis ci loolu mais banque yooyu bu ñu dikkee tey chance ba taxaw mais ku leen di rembourser bu dikkee bu même bu saisiroon bien bi war koo jaay du gis ko ko jën ndax dañ ko ne yow fii état bi teg loxo. xam nga loolu yëpp ay problème la en plus de cela nga dolli ci leneen moo di tey boo dikkee nga nekk un investisseur étranger nga ñëw dugal sa xaalis ci biir réew mi nga tey ñu xëy gouvernement tareet arrêté ko bu ko gouvernement arrêté li ñuy wax euh, dégradation euh, de l'environnement des affaires day créer benn insécurité moo di wóoratul nga def business Sénégal te loolu la ñuy natte ay réew pour que kenn ki sa war a ñëw dugal xaalisam ci biir réew mi dama lay jox benn exemple hmm? Dubaï hein? Émirats arabes unis Cheikh Zayed pourquoi immobilier Paris fa jóge fu ne dañu ni que ki nga xam ne dafa jóge am réew ñëw tabax ci sa réew bàyyi réew yëpp ñëw tabax sa réew kooku desalatu ko dul njukkal te buy dem du ko yóbbaale mais kon kenn dootul ñëw pour bu ko fekkee yow waxuma la yóbbaale wuloo ko waaye moomeel nga sax dañ koy nangu mais dootoo ñëw et c'est ce risque qu'il y a faut que état bi aussi ubbi ay bëtam ci loolu ay bëtam ci loolu xam ni que aussi nag affaire bi xëy na ñoom déformation professionnel la ñu ay vérificateur la ñu vérifier pour suivre loolu nangu naa ko mais aussi nañ ko boole ak xel ak xool naka lañ koy tegee ci yoon mais surtout surtout surtout ci yoon moi c'est ça parce que xam nga lan mooy am état lan mooy doole état nga teg mbir ci yoon gis nga tey li fi xew fii mu neex mu naqari Bassirou Diomaye Faye président de la République amul benn droit dem di arrêté chantier jàmbur yi comme ça c'est des titres de propriété irrévocables. dafa am une procédure légale ban procédure légale. non ma dafa am une procédure. bu ko war a encadrer war ah. mais on n'a pas fait. c'est fait du prince. que puis et puis Pierre Goudiaby Atepa mooy dem foofu di annoncé naan que dañuy corniche bi le lendemain on envoie toute la gendarmerie. la DSCOS pour aller arrêter des chantiers de gens di leen notifier di leen notifier di notifier cela mais c'est pas de la légalité te nag am réew nag bu dee ñoom dañ leen dañ réew mi dañ leen koo jox parce que nit ñi dañ am aspiration à plus de justice et d'équité kon ñoom bu ñu def lu légalul c'est illégal dañ ko defee ci xët-xët bu ñu ko defee ci fugg ak bu ñu ko defee ci vouloir donner quelque chose parce que aussi yooyu yëpp da ci am xam nga boo dikkee tey gouvernement xam nga ay communicateurs lañu. mën nga créer un euh, un pare-feu ou bien nga créer jox un os à ronger tey bu gouvernement nekkee dans situation difficile xam nga tey fan yëpp on ne parle que de ça. Mm. sa émission bi mu commencé ba léegi wax suuf rek la wax bàyyi nañ fi la nga xam bi defoon na ko wala matalu ko. attention nit ñi yëpp yóbbu nañu ko foofu est-ce que tu stratégie de communication pour créer un euh, un contre-feu donc yooyu yëpp aussi dégguma loolu transparence volonté reddition des comptes le gouvernement bi affiché woon kon jaadu na et puis lu tax ma mën a xalaat loolu suuf boo masaana dégg communication ñi yor nguur gi tey muy waa PASTEF fu Ousmane Sonko masaana waxee fu Diomaye Faye masaana fu koy masaana dañ daan suuf suuf suuf suuf suuf lañ daan wax am déet mais bi Diomaye fay faloo ba léegi soo ko dégg wax suuf lu dul bërki démb discours d'investiture am waxu d'investiture am waxu ko discours à la waxu ko conseil des ministres ñett conseil des ministres am na fi kenn musu wax waxu suuf subitement de bind na lettre sax fonctionnaire yi wax ci waxu suuf subitement ñu xëy xëy contexte bi ñu génne waxu suuf comme c'est comme un cheveu dans la soupe